Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. waaw Abou eh, ñoo ngi gërëm waa lutte sans frappe yëpp ñi nga xamante ne nii daje nañu arène Adrien Senghor gërëm journaliste yi nga xamante ne nii tamit ñoo déplacé wu. Eh, askanu lamb si lutte sans frappe nag woote nañu arène Adrien Senghor pour xalaatu lamb ak waxtaanu làmb parce que ku ne xam nga ne benn actualité moo am mooy eh, départu Alioune Sarr wala res wala euh, euh, desu desu Alioune donc ñun nag waa Lutte sans ñu ngi ñaan lenn képp koo xamante ne nii yaa fiy nekk nga yëg waa Lutte sans di waxtaan ak waa Lutte sans jege waa Lutte sans lu waa Lutte sans tamit bëgg ñu mun cee ñu mun cee taxaw loolu daal moo waral woote bi fii acteur yëpp nag ñëw nañu walit Lutte sans frappe yëpp teew nañu. loolu daal mooy suñu mbébét mooy suñu yitte képp ku muy doon daal na nekk koo xam ne day dundu lamb ji di ñu jege tamit lépp lu ñu wax tamit vraiment ñu mun ñu lépp lu ñu nas tamit ñu mun cee bokk ci waxtaan daal. loolu moo fi waral. voilà ki ki doon wax noonu moom mooy Doudou Faye moom moo jiite association ANALF donc euh, Saliou Diouf bàyyi ñu jox la après ñu ñëw si gars Saliou Diouf moo jiite association. Euh, salaamaaleykum euh, mbokk askanu làmb maa ngi leen di gërëm yéen journalistes yi. parce que seen teewaay fii day yaatal lu bari ci lamb bi day dundal tamit lamb euh, may wax ne nag euh, lu ñu tënk fii mooy euh, ku mun ta jiite CNG ku mun ku mun a jiite CNG na nga sóoraale lutte sans frappe na nga sóoraale lutte sans frappe loolu lañ tënk nga wooleen waxtaan ak ñoom ngeen ngeen kii liggéey loolu daal lañ bëggoon Euh, loolu lañ bëgg loolu lañ tënk fii loolu laa ci bëggoon a wax euh, maa ngi leen di gërëm. léegi bu bu jógee ci Saliou Diouf euh, bu bu yàggul rek am am na association promoteur lu temps franc bu fi amoon ki ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Diop moo ko jiite Abdoulaye Diop nga sànni tey di leen gërëm yéen ñëpp rek di leen sant presque wax ji ferenkulaayu na li ndaje bi waa acteur li simple ñoo ko woote woon sant nañ ci yaram bu baax nag bi nga xamante ne am nañ majorité bi acteurs yëpp teew nañ eh, wax ji benn rek la li ñu ñor mooy munu mënuñoo tabb jéemuñoo tabb mais képp ku ñuy indil lu feetoo ci lutte simple na doon ku ñu jege doon kiy dund lu ñuy dund am ci yëg-yëg ku ñu mun a déglu ñun satisfaction buñ ko amee ci làmb ji rek sant nañ ci yàlla bu baax wax ji wax ji mooy képp ku ñu ministre mun a indil ko saas waa ki fi nekk mooy continuer ko keneen mooy ñëw mu gën ñoo gëstuwaat yitewoo nañ ko lool yittewoo nañ ko lool pour mun a exposer suñuy doléance merci beaucoup. kon nag Ousmane Ndour waaw nekk moom it amateur ñu xam ko si ANALS voilà Ousmane Ndour nga nga waaw abu comme ni ko ni ko ñëpp di waxee rek xëy na nag ku nekk ak sa xalaat mais fii xalaatu ñëpp la boole mooy boo ko seetloo sax am na ay président association mais étiquette boobu taxul ñu daje fii li tax ñu daje fii mooy ñi nga xam ñoom ñooy dund ci làmb làmb simple yëpp yëpp yëpp ñoo fi daje li leen fi taxa daje mooy euh, li ñuy wax ci biir làmb ji bari na trop mais ñun nag dañoo bëgg suñu wax bi bañ a gudd te l'essentiel bi ñu wax ko ba kilifa yi dégg ko euh, dañoo gis ne euh, bokkul ci yegg kilifa sax nga ne ko tànnal diw parce que kilifa bi laajul ne wax leen ma ay nit wala proposer leen ma ay nit mais li ñu ñor mooy c'est pas du personnage u nit ki li ñu ñor mooy maanaam ki fiy nekk nan la fi war a nekkee ministre na dimbale boppam te dimbale askanu lamb surtout lamb simple bi nga xamante ne moom la ñuy waxal parce que ci lamb simple la ñu gën a féete ab ministre ku mu mën a teg ku fi ku mu fi mën a teg na jëlee exemple ci moom man damay faral di wax ne Matar Ba en tant que ministre de sports waa Sénégal ñu bari nee na ñu mooy meilleur ministre des sports wala bokk na ci meilleur ministre de sports yi li ko ko may ëppul ministre yi xam-xam ëpp leen xaalis ëpp leen ay mbok mais dafa am benn point bu mu marqué point bi mu marqué mooy boo soxlawee Matar Ba te nekk ci askanu ci waa sport loo suufe suufe suufe ak loo ñàkk-ñàkk solo boo soxla soxlawee Matar Ba da koy may nga egsi ci moom te dina waxtaan ak yow gis nga na jël exemple ci moom gis nga ku mu nar a dénk lamb ji na mel comme moom na am disponibilité pour ñëpp surtout ñun lutte simple nag gis nga ñun ñoo gën a néew lu ñuy jooy mais ñun ñoo ëpp naqar ñun ñoo ëpp naqar parce que suñu loxo guddul te am na lu am na nu nit ñi di manifesté woo ñun rus nañu loolu wala jomb nañ ko gis nga bu tànnee nit koo xamante ne am na suñu disponibilité ñun waa lit simple mën na wax ak nit ñi problème yi jeex problème yi fi nekk bari nañu kenn mënu ko lim mais benn affaire bu changé wee parce que dégg naa ñuy wax ne maanaam même bu nekkee équipe bi nekk moo fiy gis nga abu bu ñu naxantewul cin monta nekk ci kaw gaz wala ci kaw fourneau taal ba di tak taal bi feyul cin bi wàccul cin ba sedd loolu mën ta nekk du question balaame ñi fi nekk def nañu lu ñu mënoon a def ba pare gis nga Alioune fu mu nekk nii ak équipe bi fi nekk seen xam-xam jeex na seen mën-mën jeex na waa Sénégal yëpp nañ leen ñaanal ku leen xas wala nga wax leen ñàkk liggéey lu ne wax ngay wax rek waaye def nañu li ñuy def ba pare mais na ministre dimbale nit ñi dimbale boppam parce que gis nga ne ñaxtu yi di dégg yi nag Abdou ma wax ko ñu xeeb ko wala ñu bañ ko xeeb gis nga ñaxtu yi di am ni nii nii dootul dak en tant que affaire bi saafara wul ministre nag bu saafara wo moo ko saafara boppam la noppal mais na xam ne ñaxtu yi moom dootul mos a deñ parce que nit ñi xam nañu lu ñu xamul woon te ñeme nañu lu ñu ñemewul woon du ñu jàdd yoon nag waaye na ñu dimbale dimbale boppam bëgg nañ ko trop nag te ñu ngi koy ñaan réussite bu baax yal na ko yàlla tànnloo pour mu bañ a juum yal na ko moom neexul boo tànnee rek am loo bàyyi merci Mamadou Mbi Mbingane Sagne nekkoon mbër nekk promoteur moom it am na ay ay ay kàddu yu di sànni. wala jërëjëf Abou Ndour maa ngi sant ñëpp gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi teew ci wàllu amateur di promoteur di séeréer askanu séeréer yëpp ak képp kuy dund lambu simple. mënatuma wax li nga xam ne moom la ñuy wax lu ëpp li ñuy wax mënatuma ko wax lan laa ci denke muy képp ku mën a ñëw. ku fi nekk wala keneen ku fi ñëw na jege aska ñu lamb simple parce que lamb simple dafa présenté loo xam ne presque partout dans le monde kon war nañ ko fonk ko liit avec farab Sénégal rek la yem kon nag lépp lu ñu fonkee liit avec farab lu ëpp la ñu war a fonk liit simple sans farab sant naa ñëpp gërëm naa aussi vraiment kontaan na Matar Ba aussi maa koy félicité comme ni ko Ousmane wax rek xëy li nga xam ne ci loolu la ne ci xelam ak am amam su ko continuer ak képp ku mu mën a dénk lamb ji bu ñu fàtte loolu daal laa mënoon a wax sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp jërë ngeen jëf xam nga ne Ngor Système mu Diouf ñëwul waaye ki ko fi toogal teewal ko si réunion bi te ndaje bi moom mooy Mamadou Diouf Mamadou nga tànn ay kan waaw waaw Abou maa leen gërëm di sant surtout yow ñun bu ñu demee ci kanam yow la maa ngi leen di sant yéen journalistes yi adressé woon daawul am lii lépp lu fi xewati ngeen siiwal ko nañu xam ne lamb ji mbor yu fi jaar yëpp ay ruwa lañu adressé woon nañ ko fonk jàpp ko ñun fii la ñu am amuñu feneen kon nañ ñu ko jàppal bis président Ngose mu nag mu ngi leen di sant di leen gërëm ndax lii nga xam ne moo xew ci arène bi kontaan na ci dafa amul jot mais moo faroon teew mais bu ñëwul daanaka ñëw na mu ngi leen di sant di leen gërëm surtout yéen journalistes yi mu ngi leen di yërëm di leen sant yàlla leen yàlla defal jàmm ministre bi gaal ku ñu mën a indi nañu jàppale yegg ñu lu ñu bëgg ñu taxaw ci kon bu boobaa ñu ngi koy gërëm di ko sant jërëjëf Abou merci jërëjëf merci beaucoup. xalaat si réunion bi fi amoon loolu la fi jëm. maa ngi nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp di baalu ñëpp di baal ñëpp àq oh, li li nekk si làmb ji bari na li waral ci uh, uh, coono coono làmb ji yëpp. CNG la ak ñun promoteurs yi man daal li may li may li ma leen di ñaan mooy que ne nañu déggoo jàppoo bokk ndey bokk baay xàccandoo dóor a ñoo parce que boo déggee làmb tey séeréer séeréer moo ko moom mais instant dem nañu ba amatuñu siksa ci làmb ji amatuñu doole si làmb ji te fu mu nekk nii fu ñu ne woon làmb tey ko moom kon dañu waroon na bu ñu booloo bokk ndey bokk baay deuxièmement li li grand bi moo fi nekk parce que kooku moo couvrir réunion bi yëpp nañu woote tànn ko nga ñi nga xamante ne ñoo fi nekk dem village parce que làmb ji tey boo xoolee tey arène Adrien Senghor kese moo fi nekk fi ñu war a tegee làmb nañ dem village bu ñu demee village ñu woote euh, euh, dëkk bu nekk ñu xool ñi nga xamante ne ñoo fi yor CNG ñu convoqué fa kenn comme euh, exemple Diofior Fatick Fimela Jirol waa raison yi daal ku ci nekk ñu jël fa benn kenn nit mm-hmm. ñu am koo xam ne dañ koy nommer fii ñu boole ko dem ci mataar Ba mun na waxtaan nag moom mm-hmm. loolu daal moom laa xam ne bu ko defoon maanaam mën nañ ci am ndam mm-hmm. mais comme nii ñu yëri bokk réunion fii kii xëccee jom fii kii xëcc jëm fee kii ñu di dem fee vraiment mënuñu mënu tax ñu dem fenn ngeen baal mu àq